ñoom itam euh, ci leen bokk natif du jour boo ma ci mayoon rek euh, ñaar ba ñett rek jàppale ma ci te yàlla tax ma souhaité ji euh, joyeux anniversaire image bi bu ñëwee rek ma mën koo traité si c'est bon ay Gré ñu xool Aïcha da ngaa lànk da ngaa bañ a souhaité joyeux anniversaire nit ji Grégoire la dégg ngeen ah commencé naka Fatima Dramé joyeux anniversaire happy birthday to you ñu ngi lay wish all the best merci beaucoup à Fatima kon nag moom itam na dund bu baax a baax ak kan Gré ay ayca bu fekkee ni baax na rek eh, ci Fatima eh, drame moom ñu souhaité ko joyeux anniversaire bu baax ñaanal ko yàlla gudd fan ay Aïda Diatta moom itam eh, joyeux anniversaire à elle ñi ngi koy ñaanal yàlla defal ko tawféex ak sutura bu baax a baax a baax ci li mu nekk di wéyal ayca ak Kangré Farve Farve la tudd ah ah Far Far vous bokk joyeux anniversaire et que cette nouvelle bougie dissipe tes peines et soucis et t'apporte beaucoup de bonheur Ramatoulaye yow itam ñu ngi lay souhaiter un très bon anniversaire la reine de sa génération Ramatoulaye bon anniversaire à toi et qui d'autre si c'est bon au gré mën nañu wëyal ah Aïcha moom euh, Ndeye Mariam Ndiaye Ndeye Mariam Ndiaye aussi joyeux anniversaire happy birthday to you yow itam dundal bu baax a baax a baax a baax yéen ñëpp bu ngeen nekkee moom kan mooy ne king king baa nga borom bakkan yi kii mooy borom bakkan yi gay Gueye borom 2STV borom 3STV joyeux anniversaire mon frère loolu dul doyul yal na yàlla defal la jàmm yal na yàlla defal la sutura waaw ku baax borom xol bu yiw kii yal na gudd fan sama waa ji maa ko bëgg ayca joyeux anniversaire à DG kii tamit gërë da nga cee deful tuut waaye ñu ngi koy euh, vraiment souhaiter euh, joyeux anniversaire bu baax a baax mbokkum yaay Ibou Maquette la donc ñu ngi koy euh, gërëm di ko souhaiter un très très très bon anniversaire merci beaucoup Gré ñu tàggatoo ak ñi nga xamante ni ñoo ngi doon seetaan sunu xarit boobu di DG Eden Ousmane Diop joyeux anniversaire yow yal na yàlla defal la jàmm mbokkum yaay Ibou Maquette loo dund doyul merci beaucoup à toutes et tous et rendez Leewtoo restez scotché awa mi ngi li ñëw léegi wax leen euh, li nga xamante ni moom moo ruus ci toile bi euh, boole kàkk journal de 13 merci beaucoup et ciao.